ñoo ñooñu fi jiitu jàngal ñu lii ndax di jotaayu dekkal ñi nga xam na ne ñu fi jiitu lu dul dekkal lu dul dekkal ñi nga xam ne ñu fi jiitu jàngal ñu lii te lii dara nekku ci lu dul jàmm rek ak yiw rekk te lii dara nekku ci lu dul jàmm rek ak yiw rek oo nit ñi ci mbokkoo oo nit ñi ci mbokkoo oo nit ñi ci ànd ci yàlla woo nit ñi ci ànd ci yàlla woo nit ñi dimbalante ci yàlla oo nit ñi ci dimbalante ci yàlla. te emoo ko ci wax emoo ci ci wax rek. te emuñ ko ci wax rek. dañ ko emoo ci jëf. dañ ko yóbbu ba ci jëf. ànd ak nit ñi ci yëpp. ànd ak nit ñi ci lépp. ci suñuy jikko. ci suñuy jikko. ci suñuy am-am. ci suñuy am-am. ci suñuy kër. ci suñuy kër. yëpp. yëpp ñu ngi ko tàllal ñu ngi ko tàllal yombal àndu diggante nit ñi ak nit ñi pour yombal ànd diggante nit ñi ak nit ñi te loolu moom la ñu suñuy maam ak suñuy baay jàngal te loolu moom la ñu suñuy maam ak suñuy baay jàngal jàngal boobu nag war naa tasaaroo jàngal boobu nag war naa tasaaroo ku topp dara nga xam li tax nga topp ko ku dara nga xam li tax nga topp li nga topp dama ko topp ngir yàlla dama ko topp ngir yàlla wala dama ko topp pour bakkan wala dama ko topp pour bakkan boo ko toppee ngir yàlla boo ko toppee ngir yàlla. nga sàkku ngërmande yàlla. nga sàkku ca ngërmande gi yàlla. yàlla mi nga xam ne mu ngi wax ne. yàlla mi nga xam ne mu ngi wax ne. man maa ngi ànd ak yéen fu ngeen mën di nekk. man maa ngi ànd ak yéen fu ngeen mën di nekk. maa ngi dégg seen i wax. maa ngi dégg seen i wax. maa ngi gis seen i jëf. maa ngi gis seen i jëf. maa ngi xam seen i yéene. maa ngi xam seen i yéene. te du ma fay nit lu muy yéeneem. te du ma fay nit ki lu muy yéeneem. ndax. yéene rek ci nit mu am solo. ndax yéene ci nit ki moo am solo. nit ñi ñu jiitu nit ñi ñu jiitu fii jàngal ñu jàngal ñu njàng yu kawe yi. ñi ñu jiitu jàngal ñu jàng yu kawe yi. xamal ñu xam-xam yu kawe yi. xamal ñu xam-xam yu kawe yi. xam xamal ñu ne nit mooy mbokki nit. xamal ñu ne nit. mooy mbokki nit ki ëpp njëriñ ci nit ñi mooy ki ëpp ki ëpp njëriñ ci yàlla mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi ki ëpp njëriñ ci yàlla mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi te jëriñ nit te jëriñ nit amul lu ko fare amut lu ko faree faree kaw amut lenn lu ko faree kaw lu ëpp oo ko jëmee ko ci yàlla lu ëpp oo nit ki jëmee ko ci yàlla jàngal ko itam loo xam ne dina xam ne li nga koy oo dëgg la jàngal ko itam loo xam ne dina ko firndeel ne li nga koy wax nii lépp dëgg la. maam Alaaji jaar na fi oote ne jëmee ci yàlla. maam Alaaji jaar na fi oote nit ñi jëmee ci yàlla. ci biir ooteem bi kenn xamu ko moom. ci biir ooteem bi kenn xamu ko moom. waaye li nga xam mooy ne yàlla la yàlla yàlla nga xam. waaye li nga xam mooy ne yàlla nga xam. mooy yonent nga xam. mooy yonent nga xam. mooy lu lay kaweel moom nga xam. mooy lu lay kaweel moom nga xam. waaye ñu bëri xamuñ moom moom ci boppam mooy moom mooy kan kenn xamu ko waxu ko. waaye ñu. bëri xamul moom moomu xoote mooy kan kenn xamu ko waxu ko. moom itam waxu ko kenn. moom it waxut ko kenn. Cheikh Ibrahima jaar na fi def na loolu. Cheikh Ibrahima Niass jaar na fi def na fi loolu. ak mboolem doomi El Hadj Abdoulaye yëpp. ak mboolem doomi El Hadj Abdoulaye yëpp. kenn ci ñoom waxut ne man la. kenn ci ñoom waxut ne man la. ku ñu kuy wax rek ngay wax ne yàlla rek la. kuy waxit na ngay wax ne yàlla rek la. loo gis ci seen i wax ak ci seen i bind. ñu gis ci seen i wax loo gis. doo gis. doo gis mukk ci seeni wax ak seen i bind. ñuy wax man. ñuy wax na mën a. yow delloo nit ñi ci yàlla rek. delloo nit ñi ci yàlla rek leen fi ne. loolu lañ liggéey tam dëggu ci ñoom. loolu lañ liggéey itam dëggu ci ñoom. yàlla dimbale leen. yàlla dimbale leen. fay leen. fay leen. ndax ku def lu baax. ndax ku def lu baax. yàlla tax nga def ko. yàlla tax nga def lu baax loolu. dana la ko nangul. dana la ko nangul. dana la ko màggalal. dana la ko màggalal. mooy li mooy li xew nii. mooy li xew nii ngeen di gis. jamono yii nag. jamono yii nag. lu nekk tasaaroo na. lu nekk tasaaroo lu nekk duggante na. lu nekk dugg na. <coughs> nit ñi am nañ fit woo xam ne ragalatuñ dara. nit ñi am nañ fit woo xam ne ragalatuñ dara. bañatuñ dara. bañatuñ dara. lu nekk ñeme nañ koo wax. lu nekk ñeme nañ koo wax. ngir àgg ci addina rek. ngir àgg ci àddina rek. am na ñuy wax barki démb di ñu xas ma Mamadou ji ne ma Mamadou yi nangam la. am na ñuy wax barki démb di xas xas ñu ne Mamadou yi nangam la. te lu tax mu di ko wax. te lu tax mu di ko wax. mooy dafa wax ne moom taalibe Cheikhul Xayri la. mooy dafa wax ne moom taalibe Cheikhul Cheikhul Xayri la. taalibe Cheikhul Xayri. taalibe Cheikhul Xayri. may mayu ko ak mayut ko ak muy xas nit ñi ci seeni ci seen i cosaan. muy xas nit ñi ci seen i cosaan. Cheikhul Xayri sant ko ko. Cheikhul ko ko. Euh, bu fekkee moo ko sant. bu fekkee moo ko ko sant. bon li muy oo nit ñi du dëgg. bon li muy oo nit ñi du dëgg. li muy wax nit ñi du dëgg. li muy wax nit ñi du dëgg. ndax Cheikhul Xayri du xaste. ndax Cheikhul Xayri du xaste. Cheikhul Xayri du oote jëmee ci xaste. Cheikhul Xayri du oote jëmee ci xaste. wala waru koo def itam. wala waru koo def itam. bu déggee ñoo xam ne. bu déggee ñoo xam ne. dañ koy askanoo. dañ koy askanoo. di xas nit ñi. di xas nit ñi. na ko na ko lii santuma la ko. na oo kooka. ne ko li ngay def santuma la ko. su fekkee nag mënta ñàkk. bu fekkee mënta ñàkk. yéen a ngi xas ñoo xam ne. yéen a ngi xas ñoo xam ne. ne woykat ba waxoon. lu woykat ba waxoon. ne ne sama doomi baay bi indi na di ma di ma di jaay ay gunt di ma jaay xeej. ne sama doomi baay bi indi na di ma jaay. ay xeej ay xeej. waaye nag xam na ñun tamit am nañ ay xeej waaye nag xam na ñun tamit am nañ ay xeej am nañ ay xeej am nañ ay xeej am nañ ay xeej de am nañ ay xeej de waaye duñ ko génnee duñ ko yëkkati waaye duñu ko génnee duñu ko yëkkati feek amul feek amul amut lu ñu ko yëkkati loolu fi leeg amut lu waral ñu war ko génne yëkkati ko. su fekkee nag yow jaral na nga génne ko. su fekkee ne nag yow jaral na la nga génnee ko. lu la ci fekk itam na nga ko nangu. lu ci fekk it na nga xam ne yaa ko bay rek te yaa ko góob. te defe naa am na leneen lu ko gën. te loolu sëriñ bi ne defe na ne am na leneen lu ko gën. lu ko gën mooy suñu taarix bi bu tedd. lu ko gën suñu taarix bi ñu xam muy taarix bu tedd. ñu sàmm ko ci façon bu tedd. ñu sàmm ko ci façon bu tedd. ndax loolu mooy sant yàlla. ndax loolu mooy sant yàlla. yàlla may xéewal nga nangu ko sant ko. yàlla bu la mayee xéewal nga sant ko nangu ko. mooy yàlla nee dinaa la dolli. yàlla dina la dolli. waaye may la xéewal. waaye may la xéewal. xamoo xéewal nga fu mu jógee. xamoo xéewal nga fu mu jógee. xamoo lu ko tax a jóg. xamoo lu tax a jóg xéewal ga waaye rëy naa làmmeñ rek waaye rëy naa làmmeñ rek lu ma neex ñeme naa koo wax lu ma neex ñeme naa koo wax ku ma neex ñeme naa laa xas ku ma neex ñeme naa laa xas ndax lan ci ci koo làqu ndax lan ana ci koo làqu ndax ci yàlla nga làqu ndax ci yàlla nga làqu ndax ci yónente nga làqu ndax ci yónente nga làqu waaye ci gannaaw cheikhul xayri nga wax na ci nga làqu waaye ci gannaaw cheikhul xayri moom nga wax na ci nga làqu te cheikhul xayri kenn la ci ñun rek te Cheikh Ould Khayri kenn la ci ñun rek. benn taalibe baay la. benn taalibe baay la. yàlla xamal na ko. yàlla xamal na ko. ni mu xamalee ñu baree bari ni mu xamalee ñu baree bëri. Euh, euh, bon nag sant yàlla ci loolu. bon sant yàlla ci loolu. moo gën ngay linkaar xéewali yàlla. moo gën ngay linkaar xéewali yàlla yi. xam nañ ko ci seeni xol. xam nañ ko ci seeni xol. ba pare di ko weddi. ba pare. di ko weddi di ko weddi xam nañ seen cosaanu xéewal lan la xam nañ seen cosaan xéewal lan la waaye ñu di ko weddi bopp waaye di ko weddi te loolu nag mooy jikkoy doomu aadama ju matut rek te loolu mooy jikkoy doomu aadama ju matut rek mbooloo moo gis ñu ànd mbooloo moo gis ñu ànd am nañu ñu si ànd lool dëggu ci ñuy def am nañu ci ànd lool dëggu ci li ñuy def am na ci ay naafeq yoo xam ne yàq rek lañ bëgg waaye am na ci ay naafeq yoo xam ne yàq rek la ñuy def. na na na naa fekk yooyu amoon ci jamono yonent. na naa fekk yooyu amee woon ci jamono yonent. ci mbooloo mu tedd mooma. ci mbooloo mu tedd mooma ñu xam. naa fekk yooyu ñu ngi fi ba léegi rek. naa yooyu ñoo fi nekk ba léegi rek. bëgguñ lu baax. bëgguñ lu baax. cheikh wul xayri mi muy wax sax bëggalu ko lu baax cheikh wul wax sax bëggalu ko lu baax moom naafeq boobu ndax bu ko bëggaloon lu baax ndax bu ko bëggaloon lu baax cheikh wul xayri fi mu aju cheikh wul xayri fi mu aju baayam aju fi baayam aju fi di def lu nekk di def lu nekk ngir ngir def lu ne ngir dimbalanteeg ñooñu ngir dimbalanteeg ñooñu yow nga ñëw ne taalibe cheikhul xayri la yow nga ñëw mbubbu woo ne taalibe la di xas ñooñu di xas ñooñu bon yow bëggoo cheikhul xayri bon yow bëggoo Cheikhul du xayri. joxoo ko darajaam. joxoo ko darajaam. joxoo ko gëddëm. joxoo ko gëddëm. na ngeen ñu bàyyi fekk bàyyi nañ leen. na ngeen ñu bàyyi fekk bàyyi nañ leen. jotewu ñoo ngeen dara. jotewuñu ak yéen dara. ñaanal leen lañ am. ñaanal leen lañ am. ànd ak yéen ci dëgg lañ am. ànd ak yéen ci dëgg lañ am. bu ngeen mënee dimbalanteeg ñun ci loolu bisimilah. bu ngeen mënee dimbalanteeg ñun ci loolu bisimilah. bu ngeen ko mënut ngeen bàyyi ñu ci bu ngeen ko mënut ngeen bañu ci jàmm. kenn ku nekk dem sa yoon. kenn ku nekk dem sa yoon. kenn wàññiwut kenn dara. kenn wàññiwut kenn dara. kenn yokkut kenn dara. kenn yokkut kenn dara. waaye ñun ñëpp bu ñu àndoo ci yoonu dëgg. waaye ñun ñëpp bu ñu àndoo ci yoonu dëgg. ànd ci dimbalante. ànd ci dimbalante. amul sikk ne loxo yàlla dina amul sikk ne loxo yàlla dana tegu ci suñ kaw ragal leen yàlla ragal leen yàlla ci deru jullit ñi ci deru ci deru jullit ñi. bu leen ci teg loo xam ne. bu leen ci teg loo xam ne. xamoo ci da xamoo ci dara. xamoo yow ca la ngay wax dara. da foog ne rek boo ko waxee mu neex diw. da ngaa foog ne rek boo ko waxee mu neex diw. waaye fekk yaa ngay gaañ diw mooma. fekk yow yaa ngay gaañ diw mooma. di xalak sa bopp. yal nañu yàlla musal ci loolu. yal nañu yàlla musal ci loolu yaa rabbi. yal nañu yàlla dimbale. yal ñu yàlla dimbale. yal nañu yàlla taxawal. yal nañu yàlla taxawal. yal na yàlla dàq dàq ci suñu mbooloo mi képp ku bëgg a na la yàlla dàq. suñu mbooloo mii képp ku ci bëgg a yàq yal na la yàlla dàq. yal na la yàlla yal na la yàlla soril. yal na yàlla génne ci ñun. yal na la yàlla génne ci ñun yaa rabbi. defar lu baax rek lañ xam yal nañu ci yàlla saxal. defar lu baax rek lañ xam yal nañu ci yàlla saxal. salaamaaleykum salaamaaleykum wa